xam nga ñi ma lay wax waxu nekk waxuma wax. voilà man par exemple Aliou am mais je le cite. et euh, ah, mais xam nga am na ñoo xam cité wu ma leen. waaw parce que question bi ñu ma posé. Euh. du question buy tourné ci ñi bëgg ñëpp. Mm. xam nga question bi ñu ma posé mooy ñan nga jàpp ni Macky Sall yéene na leen. ma recoupé xam am ay affaire parce que xam nga rek journalisme je vais t'expliquer du science exacte. mais am na méthode Pape Djibril Fall xam na li may wax mën nga tromper wu de bonne fois ça peut arriver mais am na précaution yi boo ko jëlee boo juumit du loolu. waaw mais mais yéen daal da bëgg a def da ngeen bëgg a def sen bopp. ma jàpp lan moo ah. ma jàpp Sénégal non. Ah. il faut il faut ñu déglu woon. nga ci ñëw xam nga xam nga tamit. xam nga dem sës bi xaw ma jàng nekk journaliste. ah il faut pas aussi ngeen jël affaire bi teg ko ci si bopp ba nga xam ne yéen rek yéen a am benn benn capacité d'analyse boo xam ne. am solo non non li am solo dafa daan non non non dafa daan parce que dafa dafa xaw mais bàyyi ma terminer bàyyi ma terminer mais laisse-moi mais bàyyi ma mais ah mais non mais mais pourquoi ngay convoquer Pape Djibril doo ma bàyyi parce que tu as évoqué noonu laa koy waxee les journalistes tu as évoqué le investir mais loolu la oui li may wax nit ñi. ça veut dire non xam nga li gën a am solo. ci nit sax kon xam nga lu am solo ci nit. mooy que ñun. ñaan yi daal développement mais non damay doon ak. mais c'est trop tard ci biir non non non dama ne am naa droit am naa droit. si li Cheikh Yérim Seck wax. ma wax ci lu ma xalaat c'est aussi simple que ça. non non non da nga may bàyyi non. biir ba bàyyi non bàyyi ma ma eggali. mais diplôme universitaire bàyyi ma ma xam nga xam nga beer xam nga tey jii. diplôme universitaire c'est du sérieux. tey jii nii yow mi journaliste. yow mi nga xam ne journaliste la. comme le Sénégal tu es formé ci loolu. loolu moo tax. Ah, nga toog fii di gérer débat bi. am nga ay. ci sañ njàng lu la permettre loo xam ne man permettre parce que ma loolu mais doo ma bindil sama sama analyse Cheikh Yérim Seck ni mu wóor ne boppam xaw ma dafa dem France xaw ma dafa dem Italie dafa dem jàngi am diplôme noonu laa wóoroo sama bopp pour wax sama xalaat foofu laa ko il faut ñu dindi ñun ñu fi toog fi bëri na ay journalistes yu ñu man normalement bu doon journaliste yi rek ñu mettre à valeur waruma toog fi ma toog nii lu ne dégg naa ko fi producteur de musique la à la base du ma nangu Cheikh wala chante pourquoi dañu ne dañuy wax ci mbirum réew mi nit bu waxee dara nit am na droit wax la ne nañ leen génn mbirum journaliste bi teg ko fële mhm. Cheikh Yérim a sorti des noms et nañu fexe ba nga xam li fu mu ko wékk mais boo convoqué technique de journalisme que dafay kii dafay dafay yomb trop du affaire bi du loolu ay nit yuy xalaat la. Mm. mag kii mii rappeur la. Mm. rap hip hop fu malade la doon waaye ku ne am na ko. personne kenn mënul prétendre ni. yow yaa détenir capacité d'analyse. parce que loolu kenn loolu kenn waxu ko. loolu kenn sañu ko wax sax. Mm. ndax xel mu rafet. yàlla ñëpp la ko may. te comme la preuve la preuve la preuve analyse la preuve analyse yi gën a mag ci àdduna bi duñu ay journaliste. benn si man loolu loolu kenn waxu ko. problème bi problème bi mooy dama bëggoon expliquer nag ni dans la tête de c' est important bu nga li may wax nii. parce que nit ñi dañu jàpp ni dans la tête de mooy nga dugg ci xalaatu jàmbur. alors que tey boo duggoon ci internet nga bind la tête de da ngay gis. mais mais dans la tête de mais je ne sais pas mais là où je suis pas d'accord avec lui. quand tu veux faire boo bëggee jël dans la tête de ba ko def une règle universelle du journalisme. ça quand exercice la du règle exercice la am non non non Charles. non Pape Djibril on a voilà voilà voilà voilà avec les journalistes. je suis désolé je suis désolé. je ne retire rien. je ne retire rien Bouba. je ne retire rien. c'est récurrent. c'est récurrent. c'est récurrent. c'est récurrent. c'est un problème. kooku ça veut dire Bouba bu la kenn ñëw un excellent analyste. kooku Sénégal képp ku koy kii fu ne dem naa fa buuba dañ ma si wax lu bëri si yow tu excellent comme analyste ça bu la kenn dérange si côté boobu tu très intelligent tu une intelligence sociale et tu prives et ça c'est pas pour te faire plaisir que je le dis le problème n'est pas là hmm. man sama problème fan la ne mooy que on a parlé du plus facile hmm. le plus facile mooy maanaam lu gën a yomboon mooy ñëw si Macky Sall mais lu gën a difficile mooy que l'opposition tey entre deux sites deux ñaari kii yoo xamante ne kenn kii il est très actif mu ngi kaa Sonko. keneen ki il est très silencieux. et cette démarche d'Idrissa Seck mooy mooy mooy interrogation nationale mhm. interrogation est-ce que de interrogation pouvoir parce que koo déggul xamoo lu mu xalaat fu mu jëm lu mu bëgg xamoo ci dara mhm. te loolu wax ko muñ pendant quatre ans cinq ans mënul yomb noonu su fekkente ne sax mën na am à l'arrivée ba jël bu fekkente ne amul loo xamante ne waxtaan mu si te mu am yenn rancune yi ah kooku day xaw a jafe pour man je pense que analyse boobu waaw bu bu bu newoon sorte analyse boo xamante ne si ñooñu pour man c'est beaucoup que dañuy dem tibb foo xamante ne amoo fa fa réflexion amoo fa dara est-ce que Idrissa Seck tey mën na toog di wax c'est le le plan le plus silencieux si situation bu ñu ñu tey dëkk ba on a eu des problèmes électricité am ay problèmes yi ñu ngi wax ay daare ñu ngi wax pétrole kenn déggu ko depuis élection je pense que analyse bi fii ba maintenant ce que Macky le président Macky par rapport ak kii defe naa loolu c'est la chose la plus facile à discuter et sur cinq ans pour moi bon euh, oui. bon ben quand il faut me rétablir un peu on buuba waxul la ne la par exemple dana mettre en cause CESTI wala nangam diplôme universitaire amul dans un pays dans un pays normal mënul remettre en cause les diplômes universitaires quand même. Mhm. mais man nga taxaw naan un professeur d'université xamoo dara. waxi dof la loolu mënul nekk. xam nga waxi dof la loolu bu dee te jaaxaloo cours de de xamoo daal bas nga. on mm. a wax loolu léegi wax si ay wéru. diplôme universitaire man mi liggéey université 27 ans nekk naa fi nekk fa étudiant. Mm-hmm. xam université Gaston Berger balaa faa dugg fa ngay jàpp dugg fa. Mm-hmm. xam faculté bi mu nekkoon commencé compliqué ak professeur bi gën a compliqué fa la ñu nekkoon fa ngay jàpp réussir mais mënoo jël diplôme boobu def ko mu ne kayit suukar booy sànni di bu ma waxul sur la base des diplômes ou sur la base des lignes da la wax ne la comme ni ma la waxee xel mu set. gone na ko for pousse la. gone na for gone lu wax la mais loolu yow seex yi wax nga avant-hier. quand tu parlais de je sais pas benn waykat nga ne man du ma nangu waykat yi bu ñoom bu ñu bu ñu aayee en de musique man aay naa en matière d'écrivain. aay naa en matière nangam du ma nangu ñu mën a def adduna ensemble la. journaliste nga booba homme de média la.

tey seen rajo di critiquer les politiciens di critiquer les paysans tey bu ngeen tuddee ngeen di commencé di say di par parti arrêté ça. non non si. da ngay say naan ay Pape Djibril ñoo gën a sëñ. man naa par par c'est donc donc c'est pas bien yow vraiment Djibril naa rien dit de grave il a dit il a il a défendu ses idées c'est c'est bien. mais mais am na lu ma bëgg a yokk lu ndaw. Ah. xel mu rafet. Ah. ak xam-xam. ñaari yëf la. waaw du benn tey. je suis d'accord même ci l'islam dañ naan l'islam du xam-xam xel mu rafet la. tu comprends de la même façon journalisme du xel mu rafet. xam-xam xam-xam la. mais par Sénégal am na yeneen ingénieur yu def journalisme je sais je sais je sais. voilà mu ngi gis nga. ci politique rek moo nekk science politique. Hmm. géopolitique. yooyu yëpp xam-xam la. du xel mu rafet. Hmm. loolu aussi c'est très important parce que dans un pays aussi il faut ñu respecter xam-xam. xel mu rafet baax na trop. mais xam-xam parce que expertise amul kenn ci àdduna. ku mos a am xel mu rafet ba nekk expert amul. expertise xam-xam la. xam-xam jàng la. ak gëstu waaw mais li ma waxoon damay. xam-xam jàng ak gëstu ak tukki. waaw mais mais mais damay damay complété. waaw xoolal on revient sur sur le. bu réew jaxasoo ba tëju. amatul buntu jaar. borom xam-xam. université yi ko yóbbu pour pour gën a su génnoon université ngay dootu génnati. bu Sénégal jaaxal ba tuuti ñëpp jaaxal tuuti bu fi. question bi université ko yóbbu teg ko fa. su fa génnewul pour solution génnul mooy solution dootu génn. Mm. c'est ça un pays. vraiment xam ne loolu. waaye nit a ngi dem ci ci école am di jaase génn te xamul dara. waaw man loolu daal am di jaase do ak ak am xam-xam bokk. ak képp ku bokkul. ak képp ku bokkul waaw man am ñeent seen dara amul. mais on on va. on va ne pas kii kii kii. ah Cheikh Yérim Seck ah. hmm. du ñëpp ñooy xëy nekk ceeb yi sec wala Charles Faye ah. sax di pare ñoo xam ne compétence la rek. dama leen di xool da leen di fàtte dama leen di woon débat wu succession Macky Sall ma leen fàtte Macky Sall voyagé ñu bindoon ne problème xam nga da nga mën a yusuf may leen daa am du jeex. fii ba 2024 débat bi du jeex. généritaire. maintenant dañ ko war a civiliser man dinaa nangu un Charles Seck qui est là qui fait la promotion de Sonko la promotion de Idrissa Seck qui est là qui a soif du pouvoir sonn non c'est vrai fatigué sept ans d'opposition Naby Maré 2024 c'est normal que mu def la promotion de de de de de de Idrissa Seck la promotion parce que yaakaar na bu ñuy ñëwaatee xaj na mu naanaat tuuti ndox daa am c'est dans l'ordre normal des choses mais ñi nga xam dañoo tere nguur ba pare di ko exercer waaw ñoo war a ànd ak seen xel parce que tey dama yaakaar ne ñaari alternative moom la am amul nëbb nii Macky Sall nekk candidat mbaa mu tànn candidat mhm. te ñaari daa loo xam ne moo ko moo ko ëpp njëriñ. Mhm. tànn candidat nekk candidat mooy li gën a ndaw ci loolu. Mhm. mooy fexe ba boo taxawee ne maa fi nekkal mooy présidentiel réew mi na ànd nañoo yombal ngeen liggéey fi loo xam ni da mën a gëm bu ñu liggéeyul. Macky Sall ku mu tànnoo dañ leen ànd bari teg na ko te tànn keneen teg ko fi. je pense que aujourd'hui li nga xam moo war a ñor état sénégalais li nga war a xam moo war a ñor mu wax président mooy donner des résultats égaler les projets exécuter vision président terme pour que les sénégalais mën na góorgóorlu. d'accord je pense que c'est ça l'idée. mënoo bokk idée ki nga xam dafa nekk en opposition. amul lu muy liggéey heure bu xëyee muy xool lu dundal xaram yaakaar nga lu rafet rek c'est pas la même je te réintroduis dans le ndax gis naa dëgg dëgg dóor neutralité <laughs> mais dugg si waatal ak ni euh, ñu wax Cheikh Yérim euh, man je continue à l'appeler nettali géntu Macky Sall bi <laughs>